rapport bi lan la wax ci responsabilité Serigne Bassirou Gueye mooy Serigne Bassirou Gueye bi mbir mi amee moom yitteem yépp mooy woon nañu fexe ba jàpp Ousmane Sonko ci saa si moo tax ma ne Sénégalais yéen réglé ngeen dossier bi ba ñu bëggee def li ñuy def mars 2021 askan yépp taxaw ne du fi am boobu la dossier bi jeexee parce que bu ñu ma tegoon loxo mars 2021 te tey jii ñu toog nii di wax moo fi nekk maa nga fële bës ñu jël seen temps ne dañuy def seen instruction parce que Serigne Bassirou Gueye li mu waxoon commandant Mbengue daf ko ne je sais qu'il dina ñëw waaye bu egsee rek euh, téye leen ko en garde à après déféré ko ñu door ko mandat de loolu moo ne woon plan bi te bu ñu fexoon ba làq ma nag du ma mën a taxaw fii di wax la ñu liggéey yëpp pour leeral Sénégalais du am kon foofu lañu lajjee kon moom it dafa dafa dafa dafa it li tubaab daan obsédé dafa amoon yitte bu réeree ci nu muy def ba teg Ousmane loxo ci nu mu gën a gaawee moo tax dafa mujj di parax paraxe jàpp enquêteurs yi di leen def pression bi capitaine Touré pare rapport am dégg naa nag ñu naan capitaine Touré moom la àndal ak yu demee noonu wallahi ak ajjuma bi ñu ne capitaine Touré benn yoon laa ko mës a gis mooy bi mu ñëwee jox ma sama convocation benn yoon laa ko mës a gis ci àdduna xamuma ko xamaanuma ko jëflantewuma ak moom du dëmb du tey jii Sénégal nag ku am ngor am bi dignité rek ñu ne dafa am lu ne ci suuf waaye su doon loolu xam ngeen ni nguur lay àndal kon lii ko dal yëpp du ko dal dañu waxante dëgg mu def pression enquêteurs yi ne leen gaaw leen pare dossier bi ñu defee PV bi PV d'enquête yónnee ko ko lii mi ngi ci rapport gendarmerie bi ma wax de moom moo delloo rapport bi capitaine Mbeng euh, commandant Mbeng ne ko changel rapport bi mu ne ko bi ci ban anam ñaar anam benn ñaari anam yu garaaw a garaaw bu ci njëkk mooy parti rapport yépp partie rapport initial bi nga xam ne yépp c'était à décharge pour man mooy parti rapport yi nga xam ne dafa doon fësal ni lii mënul am moom la ci PV gendarmerie moom la ñu def nii souligner ko en jaune ba pare ne partie retranchée dans le PV modifier du 9 2 2011 et ayant fuité mooy parti PV bi nekk ci dossier bi nga xam ne Bassirou Gueye moom la dugal ci dossier bi fi nga xam ne enquêteurs yi commandant capicole capitaine Touré ak capitaine Diouk fi ñu bind ne am na loo xam ne mënul ànd ak dossier siif ndax ku ñuy siif yow yaay organiser siif bi programme ko xool état bi ka nga nekkaloon ci biir nga ne ko génnal yow yaa ko ne génnal kenn newul di génnal loolu tey na xel xel mënul nangu nit nit mun nañ ko siif ci anam gi ñaareel bi ku ne man dañ maa yónnee SMS boo xam ne mun na compromettre ji ñu ne la ana SMS bi nga ne leen effacé naa preuve boo xam ne mun na dugal nit ñu yónnee la ko nga ne effacé naa ko ñetteel bi ñi mu àndaloon ñu d'accord ni ñoom ay fani fan ñi ngi taxaw ci bunt institut bi di di di xaar Ousmane Sonko ñëw. ak ñi ko fa jël si loolu yépp ñu Serigne Bassirou Gueye ne génne leen ko ci PV bi parce que baaxul day disculper day wane ni lii mënul am procureur la république buy def loolu faute très très grave la parce que procureur de la république amul droit intervenir ci PV bi moom mooy le maître des poursuites c'est vrai mais enquête bi gendarme yi ko dénk ñoo am autonomie parce que ñoom rek ñoo poser question ñoo dem jëli les faits ñoom rek ñoo war a mën a def seen PV kenn du modifier PV même procureur araam na ci moom mu modifier PV waaye sëñ Bassirou Gueye yemul ci loolu de PV bi nga xam ne moom la enquêteurs yi def PV boobu moo nekk nii quatre pages quatre pages ak quelques annexes parmi lesquels certificat médical bi nga xam ne dàq na lépp ak audition yi loolu la woon Serigne Bassirou Gueye ne il faut ma charger dossier bi lan la def dafa dem dugg ci ay site internet dem jël ay photo yu bon gis ngeen photo yi photo yi ngeen gis ni dem jël ay jigéen yu simmeeku Serigne Bassirou Gueye dem jël ay jigéen yu simmeeku daal koy dugal ci PV bi ne institut moom moo doon def annonce yooyu loolu faux la mais c'est extraordinaire PV gendarmerie bi wane na ni lii musul bokk ci rapport bi waaye li gën a neex samay avocat dañu ne woon juge d'instruction bi na def réquisition ci police cybercriminalité xool ndax yii parce que am na ay numéro téléphone am adresse Facebook ndax am na rapport ak institut ba bi réquisition yi génnee lu ñu wax amul benn rapport jegewul sax procureur buy def loolu pour charger quelqu'un parce que lim ci doon ut te noonu lañ ko waxee ci PV bi noonu la ko capitaine Touré waxee ci témoignage am li mu doon ut mooy fexe ba ndaw see ñuy wax Ndeye Khady Ndiaye nga xam ne lu ne teg na ko ko tuuti mu rey doomam dañoo naroon assassiné doomam ñu fexe ba gëmloo nit ñi ni moom ab proxénète la da doon jaay ay jigéen mun a jaare foofu pour atteindre ma man lii dama ko wax le juge d'instruction daal koy génneel des preuves teg jox ko rapport bi nga xam ne du lu ñuy laam-laame moo tax ci fan yi leen bi bu soobee yàlla dinaa déposer une plainte devant la chambre criminelle de la cour suprême ak devant ligage contre Serigne Bassirou Gueye parce que Serigne Bassirou Gueye ab criminel la tappaleem yi mu tappale moo jural Sénégal fukki bakkan ak ñeent ci ay complot yoo xam ne procureur bokk bokk na ci ñu ko sum ñaareel bi mooy lu mu doon def yépp nag commandant Abdou Mbengue la ko doon defloo parce que bi enquête